alaykum, mbokk yi seen frère Ngagne Demba Touré di coordonnateur national de la jeunesse patriotique du Sénégal moom bu ñëwoon waxtaan ak yéen ci vidéo bu gàtt ci bis bi ñu dëgmal dimanche bii di muy le 9 juin 2024 muy une conférence publique boo xam ne JPS moo ko organisé parti bi avec ses instances qui ki animé la conférence bi muy président ou parti Pastef di le premier ministre Ousmane Sonko thème bi nak, yéen ñëpp gis ko apport de la jeunesse dans le projet wala ñu rôle de la jeunesse dans le projet heure bi c'est à partir de 16h, nous allah ñu tàmbali liggéey bi l'activité nag dafay dérouler ou sur l'esplanade du Grand Théâtre nga xam ne mën 20 000 personnes kon une activité bu ouverte la bo xamné milliers de bi muy amé contenir mbolo bu kon ñi nga inquiétude par rapport à la euh, formalité de jëm ci carte d'invitation Nous xamné l'accès est libre mais li waralon vidéo bi revenir sur les enjeux de ce jour adressé à toute la jeunesse du pays tous les Sénégalais en général mais à, la jeunesse du pays en particulier bis bu am solo la yéen jeunes yi nek Pastef Ginnaw biñu ñu xeexee fukki pour ben projet projet bobu nak bari na ay sénégalais yu ci ñak sen bakkan Amna sax ñu xayma ci lu toll ci quatre sénégalais ba lu ko ëpp projet bobu lu mat junni sénégalais tëjoon nañ len ci kasso lu ko ëpp projet bobu amna ay sénégalais yo xamné ñaké dañ ci sen cër wala ñu am ci ay gañu gañu ak ay lago yo xamné euh ay jafé jafé yu metti la leen indil ci sen aduna lolu nak mom la sénégalais yi sanctionné positivement né ñi amna gëm-gëm bu leen taxone juk ñu présenter leen gis-gis bo xamante élection yu ñu jugee muy dimanche 24 mars. 54 des sénégalais que dañu un projet qui mom mo mérité nous, ñu porté porter ñu dénk leen Sénégal ngeen gis le président de la République son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye tab le premier ministre Ousmane Sonko pour mu chef du gouvernement bi nekk élimaanu jëwriñ mais former un gouvernement pour xamné ne amul ben sénégalais bu ci mëna contester dara ndax ñafa nekk ñëpp xamnañ engagement. moo xam ñiy def politique mais xam moo xam ñi deful politique mais seen engagement pour réew mi seen compétence kenn du ko natable mais seen jub kenn du ko natable bi loolu weesoo ngeen gis gouvernement boobu noonu ci ñaari weer mu pose ay actes yoo xam ne rassuré na Sénégalais yépp ñi former équipe boo xam ne tey mu ngi poser ay jalons yoo xam ne képp kuy sénégalais bi nga am fierté ci ne am nga. ñi la jiite ñoo xam ne mën ngaa tëju si néeg waat ne ñi ay patriote nañ mën ngaa tëju si néeg waat ne ñii ñu dénk réew mi du ñu sàcc suñu alal kon nag mu des nag ñun ñi nga xam ne ñooy askanu Sénégal nga xam ni ñoom si ñun nañ bokk di ñu liggéeyal te su may wax loolu dama yem ci gouvernement bi yëpp parce que am na yeneen responsabilité étatique yu am muy direction yeeg leneen ak leneen liñu war moy ñu and takku liggéey pour réussir ambition bobu noonu parce que du développement bo xamante ci kaw lay juggé wàcc ci souf mais ñun ño wara and ensemble pour réussir ce projet ca jamono joju nak dafa am ño xamni ñun ñëpp dañu xam duñu xàddi duñu bayyi duñu tay te moy liñu ñu doon wooyee système système bobu nak liko président Ousmane Sonko le premier ministre désigné woon ci livre solution pieuvre tentaculaire la manam dafa bëri ay ay ay ay ay ay ramification pieuvre bobu noonu dafa étaler ay jumtuwaayam fep ci milieu économique yi ci milieu intellectuel bi ci milieu médiatique bi ci classe politique bi ci fep ci Sénégal am sax ay ramification étrangère kon xex bi du day wey mais tey lay doog a tàmbali te muy nekk xeex bu stratégique boo xam ni ñun ñëpp a war a ànd sénégalais yi ànd ak régime bi fi nekk pour tabax réew mi kon nag rencontre bii di am nga xam ne frange bi majoritaire ci population bi muy jeunesse bi nga xam ne ñeenti sénégalais yoo jël ñetti yi dañu am moins de trente cinq ans parce que loolu la statistique yi wax premier ministre Ousmane Sonko à travers la JPS nga xam échantillon rek la ci moy taxaw wax ak ñom lan mo wara doon seen pour ñu réaliser projet bi kon nak nañu xamné rencontre bu hautement stratégique la rencontre bu décisive la kon ma ngi wo képp kuy ndaw ci Sénégal te dima ma dégg nga def tout ba dimanche lo mun ci a nga bayiko ko grand théâtre nga xamné l'accès il est il est libre li ci des moy maa ngi toutes les structures yi nekk ci parti bi tambalé ko ci bureau politique ba ci instance de base yi cellules yi nekk ci quartier et village mais di wo particulièrement toutes les JPS yi nekk ci département yi ak ci communes ñu une mobilisation exceptionnelle une mobilisation qui xamné c'est à la hauteur de li de xaar ci pour ñi wan aduna bi ñi wan képp ku nekk ci réew mi que askanu Sénégal que jeunesse au Sénégal que jeunesse patriotique du Sénégal fas yéene nañu continuer ni ñu daan def di mobiliser wu ba tax projet bi kenn mënu ko la route ba au pouvoir malgré la toute puissance de tout un système kenn du barrer waat projet bi pour mu yegg fi mu war jëm te lan atténuer considérablement souffrance au sénégalais yi yóbbu réew mi objectif de développement fixé wu bu ko defee Sénégal nekk réew moo xam ne liggéey ak mérite mooy tax nit di raw moromam wala mooy tax nit di tedd donc loolu moo taxoon ñu jàpp ne bis bis bu am solo la premier rendez-vous politique majeur bu Pastef di organisé après l'élection présidentielle du 24 mars dernier donc ñu ngi leen ci woo di len jox rendez-vous ngeen le premier ministre Ousmane Sonko le président du parti Pastef yeen ndawu Pastef yeen ndawi Sénégal mu wax len lan mo wara bien évidemment avec l'apport et la l'implication de la jeunesse ma ngi leen di di rendez-vous le 9 juin inshallah merci à tous.